arrêté Thank you.

Di ba yun yan? Di ba yun yan? Di ba yun yan? abu abu kon kii baa ngi benn yow fooy jaar xoola Thank you.

sama gars